auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuhu ngi leen di di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéewal yaa defar àdduna ak àllaaxira ginnaaw bi sante yàlla julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa leen ñaan ngeen abonné suñu compte YouTube te xam ne lépp luy njariñ rek dana fi jaar tey nag ñoo ngi ñëw ji. wërsëg wu ànd ak kaarange ndax ñu bari nag danañ fexe ba am wërsëg wante kaaraange wu moo fa nekk wala bu ko am borom ñëwee tamit du xam na ko lu ko jëriñoo daal ndax ñàkk kaaraange ndax tamit ñu bari xamuñu waaye wërsëg kaaraange moo koy jiitu balaa nga am wërsëg daal da ngaa war a am kaaraange ndax wërsëg caaxaan teewu ko surtout jamono léegi ji waxi di jàppal bàyyil jeeg karang-karang moo tax wërsëg mag da dañ daa wax naan bala ko gone gi wut na dem borom bu juróom ñeen fukki at borom bay ñeent fukki at daal lu amati mën naa toog waaye boo amee lu jiitu ñeent fukki at te amoo kaaraange sa wërsëg boobu te mën naa dem wala bu demu tamit danga nga am ay gàllankoor ba doo ci jëriñu moo tax mag ñi kaaraange leen daa njëkk a wut boo dikkaay ci ñoom ne wutal leen ma wërsëg dañ lay wutal kaaraange ba pare door la wax wutal wërsëg ndax wërsëg nag jëriñoo ko baax na ci lool waaye di ko woo bam ñëw fekki woo ko jëriñoo ko tamit du lu kon wërsëg moom lañ fa yéene waxtaane tey ak yéen wu ànd ak kaaraange nag wërsëg wu ànd ak kaaraange nag mooy lii da ngay bind alam juróom-ñaari yoon bind ina ansalnaahu fii leen qadri alam nasra ku ci mooy alam nasra ndaka sadraka wa anka wisraka allazi anqada sarraka laka zikraka fa inna ma'a al-usri yusran inna ma'a al-usri yusran fa ilaa rabbika farghab ku ci ina ansalnaahu te mooy ina ansalnaahu fii leen qadri wa ma ma leen qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahrin tanazzalu al-malaa'ikatu war-ruuhu bisni rabbi min kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajr ba ci desaan mooy izaa zulzilatil ardu zilzaalahaa wa axrajatil ardu asqaalahaa wa qaala insaanu maa lahaa yawma izin tuhaddisu bi anna rabbaka waxeerahaa yawma izin yasduru naasu ashtaatan liyuraa a'maalahum faman ya'mal mithqaala zarratin dharran yarahu wa man ya'mal mithqaala zarratin khayran loolu mooy ñetti saar yooyu da nga alam nasara nag juróom-ñaari yoon ina antanaa fi loon juróom-ñaari yoon bind isaa société ardu juróom-ñaari yoon boo paree na nga teg ci wallaahu yaasimuka mina naasi juróom-ñaar fukki yoon koo koy nga sangoo ko moo amul bis fexeel ba bind ko bu ne juróom-ñaar yoon bind wallaahu yaasimuka bi moom yaa ngi koy bind soixante-dix juróom-ñaar fukki yoon nga koy bind nga ko def ko saafara di ko sangoo kooku dara gën koo gaaw ci joxe wërsëg te wërsëg wu ànd ak kaaraange lay doon yàlla moo waxtawoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wallaahu yaasimuka minan naas aaya boobu loolu lay signifié ci alxuraan yonent bi sallallahu wa sallam bi ko yahuud yi di ñëwal ñu ko daan garde ba jàgg sa nag yàlla wàcc aay bi mu ne ñi yéen ñi ba daan garde nag bu yow ngeen dem léegi yàlla nee na moom mooy aaral boppam mooy tax aay bi di ànd ak leen nag waaye yaa ngi bind wallaahu yaasimuka minan naas bi juróom-ñaar fukk yoon wala suñ borom rek moo lay aaral boppam te ku suñ borom aar da nga mucc kon loolu mooy wërsëgu ànd ak kaaraange ñu ngi lay ñaanal jàmm gudd woon wér xéwul yaa dewru àddina ak alaxira auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di jaare di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaa defar àdduna ak alaxira ginnaaw bi ñu sant